tegal seen kanam di premier ministre amadu Ba mu war a doxal nag politique gu Sénégal na mu war a jaaree amul solution ci ndaw yi moo taxit xale yaa ngay gàddaay dem ca géej di faatu tribune yéene naan man ñàkkum xëy seenum réew di seetaan seeni waajur ñu nekk ci coono goo xam ni maa day taali ñoom ndaw yi yenn saa yor ay soxna yu nu mënalul dara yore njaboot goo xam ne ñoo leen war a jiital te mënuñ ci dara lii tax nag ñuy gàddaay jël gaal gi di faatu nag ci wax yi ci anam yoo xam ne doy na waar lool le témoin naan moo taxit waa Fass ngay def lu dara jarul tribune yéene kaay naan kon ma di dikk dama ni la premier ministre amadu Ba moo amul saafara ci ndaw yi ndax ba xale yi ñu ngi dem ci géej gi ci anam woo xam ne métti na 24 heures naan kon barki démboo njaay lalu ëpp juróom benn fukk ci xale daal di faatu ca wax yi ña ca des daal di teer ca Cap Vert yéeni bi naan kon lim gu takku ma ne la ña nga ca dax la lim goo xam ne mënee su ko natt des nañ ci géej gi kenn xamul ñaata doomu Sénégal fi mu ne ñoo des ci géej gi faatu turbine yéeni kaay naan kon ndawuk réew mi dañoo teg nag daal di natt ñàkk nga xam ne am na ci réewum Sénégal ñàkkum xëy ak jafe-jafe yi nga xam ne am na ci réewum Sénégal daanaka misère laa ne la rax ci dooli doon dumbe laan moo nekk ci réew mi xale yi nag natt ko nattaat ko peese ko xam ne loo ci manti dégg dem màngaani bitim réew moo gën ci réew mi waaye nag dafa am ab choix boo xam ne dañ koy def mooy choix boo xam ne mën ngaa àgg Europe waaye mën ngaa faatu ci yoon bi xale yi ne faatoo yegg lan yemale ñoom daal nañu tante rek nan jéem nag ut saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi toog ci réew mi ci defuñu dara ci réew mi dem bitim réew wala faatu ci àll bi moo leen ko gënal yéene kaay bi dee média bi naan man kon jeunesse bi ci boppam dañoo yàgg xaar ay saafara ci seen jafe-jafe ñu dara ñu dëkkee ak ñoom ay naxe mbaay yoo xam ni maar day taali turbine naan maan ñu tegal leen Amadou Ba ne leen mën na leen andil saafara France daali xideem yaakaar gu tasati xale yi nag ne nañu dem màngaani mën a fajit jafe-jafe seeni waajur le tee mooy yéene kaay naan maan moo taxit intifada gu métti am na démb ca Fass booy gannaaw ba nga xam ni lu ëpp juróom benn ci seeni doom daal dina ñuy faatu nekk ca Fass Boy daal di ba futu tàmbalee ak takk der yi daal dina ñuy taal ni ki démb service office régional bu pêche ba daal di taal CEM ba daal di taal marché ba ak yeneenu bërëb bu ñuy jaayee yàq nañu yàqee tool su ndaw bu président bu comité local bu pêche ba mari ba nekk ci guuta goo xam ne dafa mujj woote ji renfort xale yi fas boo yi ne ñu bàyyi seen doom yi ñu daal di gàntal ba ñu faatu ci yoon bi ma la ñoog état bu Sénégal la le peuple ko di ñee naan maan jonn day état bi la bëgg boot ci mbaggam di daw moom la peuple naan Boun Abdallah Dionne day ci tànk wuutu président Macky Sall la nekk te nag wane na yoon wi nga xam ne moom bu ñu ko tabee mënees na caa yoonu bennoo bokk yaakaar andi leen ndam réew mi quotidien naan man candidature bennoo bokk yaakaar la ñuy waxtaane Mohammed Boun Abdallah Dionne naan leen takkal leen ma brassard capitaine bi bu ngeen ma ko takkalee day ndam daal di dikk le mandat yéen kaay naan man Boun Abdallah Dionne ma nga naan dal leen ña nga xam ne ñooy candidat yi ma ni la bu nu xiiroo bu nu ŋaayoo ci sunu biir nañu fexe kay bennoo bokk yaakaar am ndam waaye bu nu jaxasoo turbine yéen kaay naan man loo ci man ci déggin Mohammed Boun Abdallah Dionne mooy candidat bi nga xam ne boo déggee ñu naan continuité maanaam li Sall nekkee woon daal di wéy ci réew mi moom jonn candidat yi bari nañ lool ngir remplacer président Macky Sall waaye bun Abdallah jonn naan xiiroo géeg ŋaayoo gine dakk ñañu defub say taxaw ci ginnaaw président de la république Macky Sall ngir jàppale ko ndam li nag moom bun naan bu ñu ma tabee xam ne ndamay ñëw kay laas yéene kaay naan man Mouhamad bun Abdallah jonn mi ngi ci ay feem fi mu ne fas président Macky Sall ci boppuk réew mi moom bun Abdallah jonn naan président Macky Sall ñam ma te nga tabb ma ndax boo ma tabee di nga xam ne ma la candidat woo candidat man Boun Abdallah Dionne maa mën vox populi ba ñu waxtaanee biir néeg fi mu ne daal ku ci nekk nëbbatoos ak bëgg ngir wutu président mi waa Benno Bokk Yaakaar daanaka tamante rek moo leen dese moom Boun Abdallah Dionne ma nga naan président Macky Sall ku la neex tabal te wet ga ma takkal boppam Abdoulaye Daouda Diallo yéene kaay naan man bawul sax réseaux sociaux yi ngir ko ko jàppale moom Amadou Ba taxawal na campagne boo xam ne nee naa waaw lañ ko duppee ay ñoñam fas ko ci yéene jàppale direct news daal dina ma man la président Macky Sall dafa wax kan lay tabb wala ndax fi mu ne nag mbir yi daal dinay jaxasoo lool ay directeurs généraux ak ki ministre ñi ngi fatt nit ñee ki maay candidat wala duma candidat su Abdoulaye Daouda Diallo jaaree nii Aly Ngouille Ndiaye taxaw naan man candidat la te duma bàyyi Mansour Faye ci dënnam am ca candidat boo xam ni ma ngi ko nëbb ay ministre ak i directeurs généraux ku ne fëgg sa dana ne candidat laa te président Macky Sall fi mu ne waxagul Amadou Ba nekk ca wet ga di ngemb ay nit ñu koy waxal direct news naan maan mbaa nag Benno Bokk Yaakaar fi mu ne taxawuñu nag di de la ñaari weer moo des ci présidentielle bi waaye ku taxaw ne candidat laa yaa ngi ci li la saf pouvoir bi ci boppam ñoom nguur gi amaguñu candidat te boo moytul sax xaajaloo la ñu gën a gis ci ñoom ka daal di jàppoo waxtu woowu ñu ne Karim Meïssa Wade Khalifa Babacar Sall li coow li bari bari kenn xamul candidat la ñu am déet bu opposition ba moom bu Ousmane Sonko tàbbal nañ ko géej moom Idrissa Seck daraam wóoragul ñii xaaral ni nag yeneen yu opposition bi ci mel ni yu Thierno Alassane Sall yu Déthié Fall Abdourahmane Diouf wala it candidature bu Bougane Gueye Dany bu gëm sa bopp yéenekaay bi naan maan ñii nag gis nañ leen ci langue politique bi ñu fës ci lool donte nag musuñoo egg ci élection waaye fi mu ne ngémbu nañu ba dëgër di wër réew meeg di ñi ko ngir wane ni ñoom it ay candidat lañ ci élection présidentielle yi yéenekaay daal di xëy sampub laaj ndax nag Bassirou Diomaye fay dafay bëgg génn kaso en tout cas yéenekaay bi naan maan bii mooy ñetteelu demande bu liberté provisoire am bàyyib ndëggandiku goo xam ne nii Bassirou Diomaye fay nag mën na koo am yéenekaay bi naan man Bassirou Diomaye fay loo ci mënti waxit place am jamono jii du kaso bi naan maan waxtu woowu soxna di Didier Badji di soldaar ba nga xam ne réer na mër ma ngi ci xiifal goo xam ne mën na koo jural maar day taali Hannibal Djim yéene kaay bi naan maan moom tamit mi ngi ci état boo xam ne maar day taali ci xiifal tax ba waa FRAPP waa F24 ak njabootuk détenu yi daal ñuy taxawal nag yoonu piirte di loo xam ne nee ñu mënees na ca jaaree daal di bàyyi détenu politique yi ndax nag fi mu ne seeni njaboot lekkatuñu naanatuñu ci ay xale yu góor yoo xam ne ñu ngi leen di jàpp ci anam yoo xam ne metti na lool lobs ah di jàppee ka jiite woon taal ya ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru takk dere dañoo dem ba fekk kagul ba ca biir néegam critique yéen kaay jox kàddu ministre maire bu Kaffrine Abdoulaye Seydou Sow mu naan Alioune Tine ak Gassama nañuy wax ci li nga xam ne mooy dëgg ci réew mi xam nga réew moo xam ne dafa am ñoo xam ne dañ koo dëkkee di ko taal nga fekk ñi nga xam ne ñoom la ñu taal seeni mbir di leen yàq ketemet fàtte ña nga xam ne ñoom ñoo taal loolu nag faxas fete genn wet la Abdoulaye Seydou Sow naan nañu att dëgg ci réew mi le point yéen kaay daal di xëy tey ci Mohamed Diayité di kii doxal Benno Bokk saalum réew mi yéene kaay bi di le point di ñu xamal ko xam ne ma ngi jooyanti post waaye tam di doxalal Benno Bokk Yaakaar ca Casamance fekk post buy ndëgg sërëx mu daal di koy joyanti le point ne ma Mohamed Diaité yi daal di doxal Benno Bokk Yaakaar diggante Bunkilin ak yeneen di gox-goxaat yoo xam ne ña ngi ca Casamance tribune yéene kaay mel ni ku naan ndax réew mi ci boppam nooyeeti fi sax dafa wóorul mama kundul mii nga xam ne dañu koo kidnappé fekk mi ngi ëmb ba am juróom weer ñu jël ko wasinloo ko yóbbu liir ba ña nga xam ne ñoo ko def jàpp nañ leen ca sàngal libération yéene kaay naan ko dée mama kay nee na ba mu doon doxantu la ko benn woto 4x4 daal di sotti ko ab ndox ci kanam mu daal di xëm mu daal di yóbbu ñu yóbbu ko ci bâtiment wasin loo ko yóbbu doom bu jigéen ba daal di koy sànni moom mama ca Castor libération naan maan amul kenn koo xam ne nee ñu yaa sàcc doomu mama kundul bi ñu jàpp ko moom mama ci boppam yéene kaay bi naan maan yóbbu nañ ko l'hôpital ngir xool nag ëmb bi lan la l'observateur naan maan laataa ngay dem ab wopp goo xam ne chikungunya la tudd mi ngi doxantu diggante Kédougou Ndakaaru Pikine ak Sokone yéene kaay bi naan maan ñu jël cay